donc fi ma bëgg ñu ñëw fa mooy ñu ngi ci dialogue national. Mm-hmm. te dialogue bi thème bi mooy euh, réforme et modernisation de la justice. Mm-hmm. donc tey ñëpp jàpp nañ ne justice bi fii lay jaaree ñoŋ. Mm-hmm. baax comme ni ko sénégalais yëpp bëggee. alors ñu ngi ci dialogue jaloog bi jeexagul ñu gis ne ay série de convocation mi ngi mi ngi continuer di am. njëkk nañ fi arrêté Bah Diakhaté ak imam Cheikh Tidiane Ndao jamono jii ñu ngi xaar seen verdict. ki nga xam ne moom mooy directeur publication La Turbine ak bu Le Quotidien mhm. jotoon nañ leen teg loxo ba bàyyiwaat leen tey ñu woowaat leen di leen entendre mhm. donc ci ci rythme boobu ñuy dem mhm. est-ce que duñu répété waat la même chose bi ñu fi doon gis ci régime bi fi jógee dafay fekk mu ñàkk tegu ci yoon dafay fekk aussi mu nekk tooñ xam nga soxna laal la Ousmane li mu dégg diggante mars 2021 ba 2024 dafa doy sëkk li mu dégg jur nga doom rek la déggul imagine toi ñiy toog naan maanaam pourquoi ñu jàpp Bah Diakhaté activiste la pourquoi ñu jàpp imam imaam Ndaw nangam la jëlal li imaam Ndaw melal Ousmane Sonko ak li Bah Diakhaté melal Ousmane Sonko nga toxal Ousmane Sonko teg fa sa wajuru góor nga xool après yow nooy réactionné yow mi yow mi kaas loolu benn ñaareel ba mooy avant lii di am Bah Diakhaté moomu bu fekkoon ne maanaam dëkk bi ba ñuy ba ñuy nekk ñun opposant yoon mi ngi fi doon dox konoon moom du fanaan ci biti parce que ñaata nit ñoo ko pelante avant li kenn oowu ko pour pourquoi kenn oowu ko parce que am na ci lu mu wéer wala lu mu yaakaar et pourtant bu régime boobu demee nag moom dafa war a sakkanal boppam mu xam ne régime bi fi toog xàmmeewul Cheikh Tidiane ñas xàmmeewul Soxna laal xàmmeewul Bah Diakhaté parce que dañ ne dañuy defaraat réew mi réew mi bu ñu ko jëlee pour defaraat ko nag fi ñu war a njëkkee mooy justice parce que justice boobu warul warul xàmmee Cheikh Tidiane Niass Pastef la nekk diw APR la nekk mais nag justice boobu it en looy nekk APR nekk APR bëgg a sulli wax parce que yi ñu def ni yëpp dafa am lu ñu bëgg ñoom. lan lañ bëgg. merci li ñu bëgg mooy diaboliser nit ñi parce que am lu ñu bëggee mooy ne deux mois yi rek dañ ci saaga nañ ci wax lu ñaaw nañ ci nàngam buñ jàppee kii jàpp kii jàpp kii ñu ne lañ doon bañ ñoom ñu ngi koy def nit ñi et pourtant ñun. mosuñoo défendre benn saagakat bu wax buy wax lu ñaaw buy wax lu ñaaw état benn ñaareel ba mag ndax mas nga gis Ousmane Sonko ak lu muy opposé opposé wu mu jël kaddu gu ñaaw gu nit mënta déglu teg ko ci kaw ki muy opposé wu mosul am est-ce que mas nga gis entourage bi wër Ousmane Sonko wala ñi nga xam ne ay responsabilité lañ biir Pastef wala ay porteurs de voix yoo xam ne ñu ngi leen di déglu biir Pastef ñu jël kaddu moo góor jigéen teg ko ci deru président Macky Sall mosul am. léegi nag kon buñ par buñ taxawee bëgg a défendre Bah Diakhaté na njëkkati na njëkkati Ousmane Sonko teg ko fële ñu koy défendre yépp ñu jël seen waajuru góor teg ne Bah Diakhaté lii la wax seen waajuru góor ñu xool après ñoom nu ñuy réactionné bu fekkee Imam Ndao la moom tamit bu fekkee da tënku ci lislaam l'islam ponk yi mu la wax yëpp nga tënku ci moom daf ko wàcc parce que l'islam li wax ci benn ci wax ju ñaaw nga jël ko teg ko ci sa moromu jullit avant tout mu bañ a mu toxal dara Ousmane Sonko teg jullit ak jullit mooy jullit jullitay mbokkam. mais moom biñ ko laajee nee na dafa doon conseiller Sonko kese te wax dëgg yàlla war na ci ma am droit parce que Sonko premier ministre yu ñëpp pour man bu doon pour man bu fekkee da doon conseiller Sonko dafa waroon a njëkkee wax ji du samay kàddu en fait. moom kàddoom la bu fekkee kàddoom la nag te biir tribunal la ko waxee loolu awma ci nas awma ci nocc. mi ngi loxoy justice. Mhm. d' accord comme ni ma ko waxee euh, ñëw nga si ñaari euh, cas de figure euh, tey mu mel ni kooru journalisme bi. am nañ lu ñuy tuddee correct. Mhm. yaakaar naa balaa convocation di jot dans les normes ñooñu nga war a saisir en première même su fekkente ni da nga jàpp ni nit ki li mu defi li mu diffuser baaxul wala dafa fausse wala dafa laal euh, sensibilité parce que euh, depuis bu ñu détaché colonel Kandé bi dafa jur ay coow am na ñu ci génn wax euh, ba pas pas plus récemment suñu doyen yi wala suñu consœurs yi comme mun Maimouna Ndour Faye ak. Madiambal ainsi de suite ñu ngi wax ne euh, li ñu bëgg a teg ci journaliste yi mënuñu ko bañ démb bëgg ko nangu tey. léegi ñoom démb bañ koy teg seen moromu journaliste yi pourquoi taxawuñ kaasal seen moromu journaliste yi. ah si pourtant ñu ngi leen doon soutenir. non même Maimouna Ndour mosuma ko gis mu soutenir Pape euh, kii euh, comment dirais-je. directeur Pape Alé mosuma ko gis waxuma amul nag mosuma ko gis man Cheikh Niass. Madiambal mosuma ko gis mu soutenir Pape Alé Moustapha Diakhaté mosuma ko gis mu soutenir Pape Alé mosuma ko gis man Cheikh Niass. au contraire bi ñu falee seen mbokkam journaliste ñu waroon cee am fert dañ ko naqarlu ñoom ñu ci ëpp léegi nag foofu pour àtte fa dafa yomb dangay gis na kon ñii ay journaliste la ñuy ooyee seen bopp mais journaliste yu ëlbatiku lañ nekk bokk ci benn partie di ko nëbb ci seen doxalin ci seen wax ci seen nangam ci seen nangam imagine toi lu toll ni état lu mu def am na lu tax mu def ko lu mu maanaam lim gis ci nit ki ba folli ko fal keneen la ca biir pourquoi ñu toog ci télé di nan lii laak nangam laak nangam. ah ñoom dañ jàpp ni peut-être. soxna si profil bu baax fi may wax ci gàttal rek. Mhm. mooy état dafa informé wu. lim def pour lu gën a yokk sécurité saison bi mu toog pour mu mën a jiite sénégalais yi ci jàmm da koy def lu gis te njort ko ne lii war naa mën a yëngal réew mi am na lu ñuy nes wala lu ñuy nocc pour man suñ ko defee coow waru ci am te et puis aussi Euh, li fi nekkoon bu fekkee dañ koo bëgg a changer dañuy xool la fi nekkoon ba ñu rey suñu doom yi ñan ñoo toogoon place yooyee lu tolloo quatre-vingt et quelques personnes ñu rey leen ci réew mi ñu ne réew mi am na sécurité ñu ne réew mi am na am na cëslaay boo xam ne war na war naa mën a jug artu président bi ne ko lii du yoon te ñooñu defuñu woon loolu ñu toogaatee xool ñeneen ñi nga xam ne ni war nañoo mën a indi sécurité ci réew mi dañuy def loolu bi ci des it mooy am na loo ne du waxu télé. du waxu média du waxu leeral waaye ñoom ñuy fipp di wax loolu yépp am na lu tax ñu koy wax te li tax ñu koy wax du intérêt Sénégal seen intérêt personnel la te buñ ca yeggee danañ xam ne lii moo taxoon ñoom ñu yuuxa di wax incha allah. d'accord alors euh, point boobu duñ ci duñ ci duré carrément mais en tout cas mun nañu jàppani rek fu fi ñuy waxee ak yéen. na si lawoon woon ni na. xam nga luy lawoon woon ni na Ousmane Sonko dafa dafa dafa njiitu parti la yor ay doom yor ko ñoo xam ne dañ ko bëgg ba amuñ ci moom sago. léegi nag nga continuer di ko saaga ne di nga am jàmm ci réew mi mënul nekk nga continuer di ko wax wax ju ñaaw ne di nga am jàmm ci réew mi mënul nekk ba ñun kenn ko opposé wu parce que yàlla sax moom meeru gouvernement dafa am ñu ko opposé Iblis dafa opposé yàlla te taxul yàlla rey ko taxul yàlla yàqal mu dëkk ak moom dara mi ngi koy bàyyi muy dox li mu bëgg dox ñi mu bëgg a tourner pour indi leen ci ci ci caaxaan ak nangam mi ngi koy def mais nag ci respect ak fair play mooy am nga loo bëgg a wax wax ko Ousmane Sonko bu génnee d'accord ak moom nel d'accord ak moom li ma wax gëw li ma wax gëw ma ko wala amul nga indi ay argument tax amul ña lay gëm-gëm la ña ñàkk-ñàkk gëm-gëm la mais am autant su toog benn l'observateur ñu baal ma wala benn journal boo xam ne day toog rek publier lu ko neex bind rek sànni pour yàq pour pour pour pour yàq xel doomu aadama yi wala pour lañ koy jox ci kaw wala pour luñ koy nangam loolu mënatuñ ko dékku ci réew mi imagine toi lu mel ni l'observateur taxaw bind imam Aliou Badara Ndaw terroriste la imam Aliou Badara Ndaw jihadiste la def ay article ci moom nit ñi di romb ci journal di ko jàpp di lire ña amoon ña amoon ngëm-ngëm ci moom seen ngëm-ngëm di wàññeeku ne li wax ci imaam Aliou Badara Ndaw dëgg la l'observateur boobu moo na waat chargé ay ay mbir pap Alé Niang moo retourné waat chargé ñu ñun parti Pastef na ñun ay terroriste lañ ay jihadiste lañ dañuy taal dañuy taal nangam mais et temps ñun ñu doon wax ne ay jihadiste lañ mais jihadiste wala wala wala terroriste nan lañ koy bàyyee muy bokk kan muy muy muy bokk ci ay candidat bu mën a jiite jiite Sénégal lu ko ci fekkoon dara ana mbokki imaam Aliou Badara Ndaw kilifa nga fekk ko mu toog mu nekk biir néegam nga jàpp ko mu mu yor kiloot bu ndaw nga génn ak moom noonu toroxal ko ne yàlla du la taxaw yow état bi defoon loolu yàlla du la toroxal ci kanamu sénégalais yi c'est impossible par force dañ dañu dañu souffrir lii te et nañ waa euh, waa ànd maanaam ñoom ñu ànd noonu ne dañu ànd ak APR ñoom xeet journaliste yooyu nañ continuer seen souffrir parce que dix ans deux mois moo ci des moo moo demagum waay Bassirou Diomaye Faye day toog 10 ans kooku maanaam féetoo na côté. après Ousmane maanaam deuxième mandat bi nga bëgg wax ne daal mat na. maanaam première bi taxu ma taxut may wax. parce que incha allah bu neexee yàlla d'ici 5 mois ci kanam. Mhm. bu ñu commencé projet yi ñu yi ñu digg Sénégalais yi ak ak ni niñ bëgg doxalee réew mi 5 ans yi taxut may wax. alors ci biir discours président